kon man en tant que murid damay jébbalu juróomi ab laa sëñ Ahmadou sëñ Modou Mamoun xalifa Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm man duma ko ñëw koy ñëw nii rek comme politicien déedéet dama bokk ci kër gi parce que sëriñ Sidi bi sëñ Ahmadou mooy sama sëriñ mooy sama wasila sëñ Moustapha la bi sama xarit fa lay dal sëñ Moustapha Saliou di sama xarit sëñ Fallou Soumaï bi di sama xarit bu may ni bu ma sëñ Bass Abdou Khadre sama xarit sëñ Abdou Karim ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk wala ziar samay xarit lañu ndax ñoo bokk li samay basi la ba ci sëñ Modou Mafou sëñ Modou Mokhtar sama nijaay léegi laa gis Serigne Sidi doomam romb na fi léegi kon li ma indi woon mooy ziare ñaan ñaanal Serigne bi mu fi yàgg fi lool ci wér yegg ne liggéey bi muy liggéeyal maamam waaye sëriñ bu mag bi boo nee sëriñ bu mag bi kenn rek la ñu xalaat liggéey bu rëy bi sëñ mu taxaa yàlla fi yàggati rek ñaan ko rek mu ñaanal Sénégal ñaanal ma ndax dama nekk taalibe boo xam ne dama yaakaar ni sama heure moo jot ndax loxoy Kajoor dañuy weesaloo dama jàppale Macky Sall ba mu falu faluwaat mu ne moom bokkatul ma gis ne ñëpp ñu teg maa ci mën xam nga wax sa bopp daa métti maa ci njëkk nekk ministre candidat yi may dégg yëpp candidat yi dégg yëpp maa ngi njëkk a toog conseil des ministres yi ngeen dégg yëpp laa wax dégg ministre xaw xaw du sax nekk ministre ba may nekk député di liggéeyal askan bi dañ tuddee ma député du peuple l'homme du 23 juin ñoom fu ñu nekkoon

ndax am naa yaakaar gëm naa ne Serigne Touba moo yore caabi yi ubbi di faj soxla yi kon ba bu ma ñëwee fii kii Serigne Touba actuellement Serigne Mountakha Bassirou mu ñaanal ma sëñ Moustapha Lakar ne ma fasaale loo bëgg muy sama xarit ma ñaan li ma bëgg damay ñibbi ak jott bu rafet yàlla nag mooy fal waaye Serigne Touba ku ci am doole la ndax li mu liggéeyal suñu borom a tax ah mu ne yàlla lii la yàlla ni lool loolu da ngay dem ba jaxasoo sa borom ndax liggéey ba rafet bi ko liggéeyal ba mu kontaan ci ci kaw loolu da dina giñal ni bëgguma nekk président pour kuuxare wala